asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu xaq di leen baal xaq yéen waa daayiratu safinatul amaan ci njiital sëriñ maam góor njaay bu tuubaa kër moor njaay noo ngi leen di delloo ab nuyoo di leen delloo siyaare di leen baalu xaq te di leen bal xaq di sant lool tey bëgg lool ci teewaay bu rafet bii muy jokkoo ak kóllëre jokkub bokkub talibe jokkub bokkub dëkkandoo daje gi ñu fi daje ci tekku sanse ngir siyaarante ak saawax da ngir jëm yàlla ak yonte bi sëriñ bi yàlla nanu ko yàlla nangul te fulal nu ko te laqal nu ko fi yàq yëgut te lépp di ak yokkute ci suñu wàllu woox ci suñu wàllu yaram ci suñu wàllu diine ci suñu wàllu adduna ak alaxira yal na ko borom def ci gën gaa rafetina anam xasida yin fi jàng yépp lu suñ borom di ñaan rek ci tawfeex ak xéewal ak mucc yal na ko sama borom bokk defal lépp lu sëriñ bi di sant borom amit yal na tàbbal ci biir cant kooka lépp lu mu ciy musli it yal sama borom dugal ci biir musal gi ko musal ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam lépp lu ko jodd ni ñodde nit mu dugal ñu ci biirum ñoddem lu mu ko jañal it mu dugal lu ci biir jañal nga mu ko jañal loolee kon am nañ mbégte lool akuk cant lool ci teewaay bi di ñaan suñ borom bi nga xamante ni dara tëw ko mu sàmmal nu kóllëre gi te tëyal nu ko te seytaane bañ ci am wàll gannaaw loolu it dégg nañ kàddu yi ngeen wax léegi it ci biir noo ngi koy jàpp it te di ko nangu mooy fa seeni di ànd ak yéen ci gox bi ak ci tund wi ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci toolu lislaam bi lepp lu ko yaatal ci walu jikko ju rafet ak melaw rafet ak jëflante no rafet ta yalla rek tax dégg nañu ne sëriñ ngeen dina sel ko ci dëkk ba ngir yaatal yu sëriñ bi fofé yalla ngeen ci am dam ak tawfiq feex ak jàppandal ak barke ci gën gaa rafetine anam ba am ci lu kawe seen jot aduna nak lepp yitt rek la ak farlu ak pas-pas bu kawé yitt ju kawé ak pas-pas bu sell bu yéene amé pas-pas am rek sunu borom ñaan yi ko sëriñ bi ñaan yépp lu ko nangul la ba tax nag képp ko xam ne yaa ngi yëngu di jëm ci loola rek man ngaa dajeeg ca loola tawféex waaye li nu war noonu njaboot yi rek mooy sellal sunuy yéene bu baax te kawel suñu yitte bu baax te jëmm yàlla rek a tax te lépp lu ñuy defit liggéeyal sëriñ bi ci lislaam gën nu koo ñor bu la amee rek lépp lu luñ song rek te boole suñ bopp te nekk benn te bañ a yaatal seytaane suñu diggante mbooloo fépp fu ñu ànd rek la leen war moo di ka jiitu na ci yoon wa na ci siraatal mustaqima di jéggale ak jëllil tey bañ ci geesu ña topp ca gannaaw te ànd ak moom àndin rafet te mm, kilifa ak jëwriñ duñ ni mbooloo ma dem leen maa ngi ñëw ñoom waxtu wala rek lu ñuy nen nañ ci jiitu ñoom ku ñëw fekk leen ci ku dem bàyyi leen ci mbooloo it sunu àndee ne leen yàlla rek tax a jóg te nañ dëggu te nañ dëggal te nañ sellal bu ñu yaatal seytaan ne seen diggante bu ñu yaatal adduna seen diggante bu ñu yaatal bakkan ak bànneex ci seen diggante bu leen bëgg ku leen tag bu leen ragal ci ngeen ku leen di ŋàññi waxtu wane ne leen ci dëgg ak lu leen dëgg mën a jural rek ne leen ci dëgg dëgg moo gën lépp bu leen ci bëgg wéet bu leen ci ragale wéet bu leen ci bëgg wéetal fu ngeen toll daal na ngeen di góorgóorlu doon takk deeru sëriñ bi nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey jàpp way du te fonk leen te warmal leen ngir jëm yàlla wattandiku ak tooñ di jéggaleeg tooñ di ko jëllale te jëm yàlla rek a tax di muñ ak a sant jaam bi fu mu seetantalee li mu war a sant yàlla mi ngi nag gàññ ñi ci jëmmam ak njabootam ak li ko wër loola lu ko ëpp cantam ngi ci te bu ca nekkee di sant sunu borom dana ko dolli muñit mu di ko def ndax faw it yàlla dina nattu ci sunu alal wala ci sunu jëmm wala ci sunu njaboot wala ci nit ñi ñu dina tooñ wala ñu def lu dut noona waaye su boobaa nga jàppe comme nattu tey sant tey muñ te yàlla rek a tax te bañ a nuy rafetal suñu jort ci bindeef yàlla yépp lépp lu waaye defal ab jaamam nañ ko ko yéene ba mel ni noo ko am waaye bu nu añaan mukk bu ñu wax lu dul dëgg mukk bu ñu jëstal mukk bu ñu rambaaj mukk bu ñu yéene kenn ab safaan bu ñu ko wax kenn te bu ñu ko jëflante kenn te yàlla rek a tax fu ngeen toll fu nu toll nañu jiital suñu kërug ëllëg suñu kërug tey ndax kërug ëllëg mooy sax dafa xam ne boo ko gentalee dootoo ko sancaat dafa nga dootoo fa jóg ñaar yooyu war nga leen di màndaxe di leen seetantal di leen bàyyi xel bu baax mooy di góor góorgóor lu baax sëriñ bi daan wax ne adduna moom ku fi nekk fu la naqari bu la soobee mën nga fay mën ngaa randu dem feneen waaye foo xam ne loola fa mën di naqari benn jéegu mën mënoo koo diis jëm fenn foofee moytu fa yóbbu lenn loo xamante dana la jural aw naqar foofe dara gënu caa nag ak jub tallaahi lay sayeen fa sax sax daa xinda olooli ramsi xayra huda foñ toll nañuy góorgóorlu ci di rëbb ak jub loolu mooy waru gar am murit isil muridu laa yuridu abada xayral rahmaani xay soxasada kon nun ñëpp bañ doone ay taalibe murit kat lanu war fu ñu xëy di rëbb ak njub di rëbb ngërëmal yàlla di góorgóorlu na ci siraatal mustaqima te woy ca te sax ca ku ci toog yoonu dëgg it bul bëgg ku la tàgg bul ragal ku la ŋaañ bul xool ku lay jublu bul xool ku lay wan gannaaw ne ca te koo booleeg dara te yàlla rek a tax yàlla na nu ci yàlla dimbali nag sàmmal na boppam te aaral te musal nu ci mépp ndog ak pakk ak musiba ak balaa te bokk nu defal mujj gu rafet yàlla na nu sama bokk defal mujj gu yàlla na nu sama defal mujj gu kenn ku ci nekk ba muy jóg yitte jum am ak yéene jum am yàlla na ko yàlla mottali kenn ku ci nekk lam bëgg di ko yóotu ci yiwu àdduna ak wow alaaxira yàlla mi nga xam ne mooy borom kàttan ak tawféex te di ko joxe yalla mako ci ben jam jaam yalla nako ko ci jox ciir bu kawe njortam kenn nako ci nek lamay ragal di yalla suñu borom dox digganteem mako lolé zahiran wa batinan no sunu njaboot ñëpp goor jigéen mag ak ndaw yalla yalla fa faj aajo yëpp te jàppandal fajin yëpp ci gën gaa ni anam di ñaanal cheikh mohammed muntaka suñu borom yakal ko fi lool tamay ko ak wér lool te naaleem ak yéene mu jëf ci jëf ko jëf ci lu kawe njortam lool te nu ànd ko mom ci gën gaa rafetine anam ak njabootu serigne bi yëpp السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.